ma lay interpeller c'est par mhm. rapport à l'autre euh, ak beneen côté bi mhm. on a vu euh, il y a beaucoup de mouvements de soutien ak beaucoup de leaders politiques yu nga xamante ni ngi dem di soutenir la coalition Diomaye Président okay. euh, récemment mën naa citer euh, Abdourahmane Diouf dem na mhm. euh, tey est-ce que cette vague de soutien là envers Diomaye ne vous fait pas peur oh, non ne nous fera pas peur loolu du ñu ragalloo parce que xamul ñi voté ñi ngi toog te xam nañ ni euh, benn Bokk Yaakaar am na capital électeur am ba pare ñun dañuy wut leneen lu luñ ci yokk xam nañ suñu doole te aussi que les Sénégalais ouvrent leurs yeux parce que décision bi c'est une seule et unique décision Sénégal dafa toll foo xam ne soxlawul rupture les gens conscients dañu war nañu mën a xam ni tey am candidat bu mel ni Amadou Ba c'est une chance parce que lu parce que est un est un vrai produit de l' administration sénégalaise fii amul un candidat bu ko fi ëppalee profil wala bu ko fi gën a baax le profil parce que il quelqu'un qui a fait presque quarante ans dans l' administration et autour de l' État fi mu jaar yëpp excellence. récemment il a été nommé. moom il a été il a été distingué meilleur ministre des finances en Afrique. kooku c'est pas n'importe qui tey boo xoolee lors du club Paris bi Macky Sall doon dem c'était qui son ministre des finances qui a monté les plus grands dossiers du Sénégal mais loolu est-ce que ça ça suffit parce que Macky Sall euh, loo loo mën a wax ci Amadou Ba.